الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه ومن والاه باب الحيض اللي ما يكون في جانب المبارك والنفاس الجسن وما يمنع لنا ترى هذا الصوت بنت بي دفاي جانغ مبارك غسين اك ليغا خامني دفاي تري توج الحيض مبارك دمون دير لا خارجون بي اجي ген جيجين ka kudratin bu mel ni tëkk-tëkk maanaam dafa xaw a yore dafay jéng jëm jëm zone wara mu xaw a ñuul mm-hmm. waaye nag min xubur yi man mu nga jóge ci kanam ki nga xam ne taxmilu dana ëmb aw ko sufratin wala mel ni gel-gel maanaam dafay xaw a zone wala mu xaw a ñuul kudratin mooy mu mel ni raxasitu yàpp xaw a ñuul mm-hmm. sufra mooy mu xaw a soon maanaam daa am luy nekk ci kaw mel ni zone mu ngi jógee ci kanam kuy ëmb nga dee gis ne ku dul ëmb kooku yorewul mbërëg mënul am mbërëg ku mën a gudd ëmb dégg nga ay xaasa lii baabul bunt la fi bayaani xokk min ay ci leeral atte mbërëg wa nifaas ak gësin wa fi bayaani maa ak leeral la nga xam ne moom dana tere toj asxaru bu ndaw kaan la nekk aw akbar wala bu mag dafay leeral li nga xam ne toj bu ndaw wala bu mag dana ko tere fala xay du mbërëg loxo tan ci loxo mutlaqu saylaan mooy luy yool rek يقال لنا هذا يولنا الوادي قروي إذا سالنا يولنا وشران تساني أنا هو موم قدم موي درد الخارج بيجين بنفسي سبهم من قبول من تكنم كي خم تحمل دون أم عادر أنت على دينغا مبرك تساني أنا موي درد بيجين دجاري تكنم كو خمني منا أمبو وهكما تونجر لنك تصريف بني آدم موي تدل دم آدم وتكريم أكثر الكرد جرنيو مبرك موي واو wow. teral doomu aadama rek laa wax de qaala wana taala yàlla mu koy mu ne walaqad karam naa teral nañ bani aadama doomu aadama fa takrimu teral ko wa tasrif ak teral ko yaxtadi yaani dañuy waral rafam yëkkati koon darajatul bahima ci darajaay bàyyi ma teral gi ñu koy teral ak teddal gi ñu koy teddal mooy fexe rek ba doomu aadama wuteeg bàyyi ma faqad atana subhanahu tudd na ma sellam wa taala kawe na ala banaati xawa ci doomi aat awa ala yàlla nekk moo salaamu jàmm bil xaydi ci mbërëg li ixtabara pour ñu natt bii ci moom arahimu waaw biir ba xala alaqa ndax ajuna bil xam li ci mu am laa wala déet li xifsi ansaabi pour ñu mën a watu askanin doomi xawaayi mooy doomu aadama yi yàlla daf leen may ñu am mbërëg pour xam jigéen ji mën a wala ëmbut wuteeg bàyyi ma bi nga xam ni boo mbéege ak boo ëmbut kenn mënu koo xame rek lu mooy biir ba feeñ wala way la xaqiqatin way la xaqiqati jëm si dëgg-dëgg mbërëg fi charia charia asaar la junna naas mu waykat bi pour xam ne lan mooy mbërëg si moo tax mu ne ay ilmu na mu ànd na xëy na nekk mu rek damun deret la bi tasdidin mii mi ñu sodde mii was ni ngir wayi waaye moom deret jooju ma nuñ xam la dégg nga deret moom xam nañ ko aw kudratun ay cheyun mbir la boo xam ne kadirun dafa zone yamilu mu jàngi la sawaadi jëm ci xaw ñuul aw sufratin wala mu xaw a gel ay cheyun mbir la boo xam ne yaalu dana ko kawe safaratun ak safaarun ak soon xam ne xarija génne bi la boo xam ne day xaw kaw gi boo xoolee ci kaw dafay xaw am lu zone wala mu xaw a ñuul mel ni raxas lu yàpp min qubli man mu ngi jógee ci kanam ki nga xam ne taamilu dana ëmb aada dañ ci aada mbërëg ci kuy ëmb la jógee waa daal yi maanaa kalaam yi mooy maanaa bi mbërëg ci kanam kuy ëmb lay jógee de waxtaraza ko bi dami ci wa maa baydu ak baadu ak li gannaaw deret xan xayrihi waaw ci loo xam ne du deret lépp loo xam ne du deret du mbërëg kal xëy ni ki wa sarit ak dëttu wànjar kal xëy kon waaw ni ki wa sarit ak dëttu wànjar bu maas ba zalik ak indi rek yooyu fale si nekku bi xay din ci mbërëg de <coughs> dëtt du mbërëg mbërëg deret lay doon wabil xaariji ak ci liy génn bi si si moom amma ci loo xam ne génn bi sababi iftidaarin sababu bëtt bëtt mooy lan mooy ndaw jigéen loo xam ne mosul am borom kër boo amee borom kër mu ànd ak moom deret joo jigéen kooku du mbërëg aw suur bi dawaayin waa wala naan saafara bu naanee garab deret di génn ci moom loolu duñ ko tuddee mbërëg loolu moom ñu bëri dañ koy laajte si jigéen ñi waaw waaye nañ xam ne buñ jëlee ay garab wala ay doom wala ñu def planit deret jooj nga xam ne nii doom joojoo ko waral maanaam lañ naan moo ko waral loolu du mbërëg du soppi benn àtte dañu mel ni ku gisul dara rek de fan la ñu doon gis mbërëg daal lu mooy seen àttee mbërëg aw illatin wala feebar wa fasaadin ak yàqub deret bu dee feebar wala deret ji génn wala yàqu loolu du mbërëg dégg nga ka demee istihaadat ni ki deretu jorngeel moom deret ju yàqu rek de di génn rek te waxtu wa jeex na loolu du du mbërëg fale si nekku bi xaajin di mbërëg ay dem ba tey de mbërëg daal deret la joo xam ne benn sabab waralut ko baaxam jigéen rek la wa bil xaariji dana génn min xuburi ci kanam namm na ci a di moytu mene dami ci deret al xaariji bu génn min duburi menaata ci gannaaw jigéen deret ju génn ci gannaaw falay si nekkul bi xay ci mbërëg wala ay tarata bu du toftaloo alay ci moom axkaamu atee mbërëg de mbërëg ci kanam lay génn amaa deret ju génn ci dem kaay duus moom kook du mbërëg wa bi xawli ci waxam man taxmilu ku yow ci aada dàq na ci luy génn min xuburi saxiratin saxirihi ci kanamu ndaw ka binti sidri sini na ni ki doomi juróom benn at ilaa ba juróom ñeenti at koo xam ne ni juróom benn at la ba juróom ñaar ba juróom ñeent kooku bu génnee deret deret jooj du mbërëg mbërëg waaw ci ku mën a ëmb la la mën a génne de waaw ni ki doomi waaw fukki at jëm kaw aw xuburi kabiratin wala ci kanamu mag ji dan lool ku mage lool kooki deret ji génn ci moom du mbërëg ka binti sabi sabina sanatan sabina sanatan ni ki doomi juróom-ñaar fukki at ku dem ba am juróom-ñaar fukki di gis deret deret jooju du mbërëg faak sara mbaa lu ëpp juróom-ñaar fukki at de loolu lépp doomi juróom-ñeenti at jëm suuf wala boog doomi juróom-ñaar fukki at maanaam ku am juróom-ñaar fukki at ak ku am ñeenti at jëm suuf ku ndawee bopp ak ku mage bopp deret jooju muy gis du rek wala yem noonu du tere salaatam julli wala soman du caageen koor wala xëyri ma du caageen lu dul ñoom ñaar ñoo de dara jooju du tere julli du tere xoor du tere waaw yeneen yëpp de ndax du rek lan moo gën a néew ci mbërëg mu ne aqalu la ci gën a néew addu faatu mooy benn jañu maanaam mën naa toq benn toq rek dagg laa fi ne addati waaye ma ci adda de bu dee adda moom foo mu am bis wala lu am solo ci bis bi waaye ñëw ab toq dagg rek wala lam ñëw mutu sax genn wàllu bis bi loolu kenn du ko jàppee am mbërëg ci wàllu yedda ku yeddawu war a toog ñetti mbërëg maanaam ñetti set kooku bu gisee mbërëg mu toq dag dagg loolu bu mu ko kontaale ndax loolu bokkut ci foo mu ñëw ci bis bi lépp wala boog lu ëpp lu am solo ci bis bi dégg nga wali fu genn wàllu weer fii ci mbërëg aqal muddati mooy diir bi gën a sori rek laa wax de mbërëg la ci gën a sori moo di genn wàllu weer dégg nga su fekkee maanaam fukki fan ak juróom jigéen daal bu gisee deret ba mat fukki fan ak juróom te daggut na xam ne feebar la xanaa ko ëmb bu dee dafa ëmb te amagut ñetti weer mu ngi ñëpp loolu de moom dana ci ñëw aqaloo la ci gën a néew addu faatu mooy benn jañu fi loxo ci loxo addu xatu mooy jañu rek de ay an aqal xay di naka la gën a néew ci mbërëg laa xaddade rek doyaloo ñeel ko muqarrarun buñ saxal min xaytu miqdaari ci kem tolluwaay wala min xaytu saman saagen comme jamono mbërëg moom la ci gën a néew ne foo mu toll toq nangam déedéet mën naa nekk lu tuuti dagg loo ci deret lum tuuti tuuti bu daggee ndem ñëw na ci baax si tam euh, waxtu mu war a ñëw te feebar waralu ko dara waralu ko lum tuuti tuuti mbërëg la naka noonu jamono ji mu war a ñëw euh, la ci gën a néew kenn xamu ko mënu ko nattale ne minute lay doon wala cinquante wala nangam mën naa toq daal lu toll lu ne dagg ba tey mbërëg la fa toxatu danañ compter du xatu jañu ga ay saylaanu dam yi yoor yoorog derja aw taqtiro am toqam min qubuli maraati ci kanamu jigéen wala xadra daqiqatin di la ab minute la mina zaman si jamono danañ ko compter xay tan bërëg deret ji bu yoree dagg lu ndaw ndaw kooku mbërëg la bi nasri buñ xoolee dana baadati ci jaamu yàlla faqat dong waaye nag mbërëg la mooy ci wàllu jaamu yàlla mooy mooy foo mu war a sangu pour doon mën a julli door a mën a def jaamu yàlla yi nga xam ne mbërëg da koy tere de bi maanaa maanaa ba andoo na ko deret jooju toq lum ndaw ndaw yooju bu day waral alxusa sangu alal maraata jigéen ji bi mu jara di ru'yatiha ci gis ko li alaamati inqitaa yi ñeel man nga daggam maanaam boo gisee mbërëg mi dagg na lum ndaw ndaw rek waaw yow jigéen ji sangu war la woyof sur de yàq alaa ci moom saw mu kooram fi zaalika yow mi ci boobu la bis waaw laa fi naa dëtt waaye waxuma ci naa su ko defee it mbërëg moomu nga gis waaw lum ndaw ndaw rek yàq na sa koor su fekkoon ne dafa fekk nga xoor <clears throat> waaye waxuñ nag ci wàllu xedda min talaqin ci fase bu dee dañ laa fase nag toq boobu rek doo ko kontaale naan xam naa benn mbërëg ñaar ma dese déedéet fra bu dee du mën a ñàkk mi ni yi mu continuer bu dee dafay daw yow man bis kaamilan bu mat aw bande yomin wala genn wàll bis lawu ñeel na ko aw bande yomin wala lenn bis loo xam ne lawu ñeel na ko baalum solo bu dee dafay eddewu dañ koo fase muy eddewu foofu bu mu ma ñëwee dem ak moom bis bu mat sëkk bu daggee na jàpp ne am na benn laab walla boog ñaari laab bu fekkee ci laab lañ ko fase woon wala boog li ëpp solo ci bis bi daal mbërëg ma ñëw na ci door a dagg su boobaa naka compter waaye ab toq rek dagg walla ay minutes yu ndaw mu dagg loolu du ko compter mu mis lu iddati kem iddalaal istibraaw laablu laablu it balaa ngaa sañ a jaayi bi laablu mooy jaam jaam boo doon kooku balaa nga koo jaay keneen dafay fekk rek waaw moom jaam boobu ñu laablu ko ba xam ëmb naam ëmbut ndax daa nga joteeg moom. laablu mooy xaar moom gis benn mbërëg rek ñu door koo jaay waaye kooku moom su gisee lu am solo ci bis bi wala bis bi yëpp am nga droit jaay ko dégg nga waaye nag ndem gisul lu toll noonu ko droit jaay ko de maanaam comme ko jaay moom jot moom waa maak saru waaye la ëpp ci mbërëg fa yaxtalifu dana wutee bi ixtilaafi nisaa ci wuteeg jigéen ñi alxoyadi ñëy mbërëg mbërëg li ci gën a bëri moom jigéen ñi rek ci la yaaju fay na nisaa naka jigéen ñi filaay di ci mbërëg ala salaatari aqsaamin ñetti xaaj lañ jigéen ñuy gis mbërëg ñetti xaaj lañ muftaraatun kuy commencé gis mbërëg waaye moom alati mooy ki nga xam ni lames biq jiitu laa ñeel ko xaydun mbërëg walam taqrur saxut laa ñeel ko xaydun aada jigéen ñi ñetti xaaj lañ kuy commencé gis mbërëg nga xam ne ni mësut gis mbërëg mi mu ngi koy door a gis xamut sax ay ñaari fan la koy gis ak yooyu parce que moom mu koy door a gis kooku kenn la nga moxtaatun ak aji baaxoo gis mbërëg way yëlati mooy ki nga xam ne sabaxa jiitu na laa ñeel ko xaydun koo xam ne yàgg na koo gis wata sax na maanaam leer na laa ñeel ko xaal xam ne yàgg naa gis mbërëg te am na ay fan yoo xam ne ni moom la ko daan gis naka jekk kooku kooku keneen la waxaamilun ak ba di gis mbërëg ñett ñi daal ñoo am faaksaroo la gën a bëri ci mbërëg fi àqil mubtadaati ci àqi ku ko commencé gis illa men xatin bu daggur adamu daraja xam te naa sare man mooy fukki fan ak juróom ku ko door a gis saa yu deret ji daggoo na daggee na sangu te julli su fekkee nag deret ji dégg nga dafa continuer moom rek na xaar ba mu mat fukki fan ak juróom bu daggee baax na bu daggul mu sangu te julli xam ne feebar na moom mi nga xam ne mu ngi door a gis mbërëg dégg nga loolu mooy atteem fa xawlu naazim waxu waykat bi wanis fu shahrin genn wàllu weer fii ci moom aqsal muddati mooy diir bi gën a sori inshuru day ju ñu bii ci moom ila azal maanaa ci bile maanaa koo xam ne nii dafa commencé gis mbërëg bu deret ji continuer ak moom na dem ba mat fukki fan ak juróom bu daggee baax na bu daggu nag mu xam ne lii feebar la sangu ta julli dégg nga naka noonu nit ku ko yàgg gisit mbari mu dopp fukki fan ak juróom fay la min xatinam daggut baadam mu di nit fi saari gannaaw wéy genn wàllu weer faye moom mustahatun aji jor ngeen la mooy dafa feebar tax tasiru na sangu wujuban ci lu war wata sumu tam woor watu suli tam julli watu taw tañ tam tañ sëyeg moom maanaam <laughs> bu fekkee dagut na dem sangu waaw xam ne dafa feebar mën naa julli mën naa woor mën naa sëy ak këram ndax loolu dumb rek feebar rek la mënul mënul changé benn atte dégg nga léegi nag loolu mooy atte koo xam ne dafa commencé gis mbërëg kooku nag bu dee deret ji dafay dagg ka ñëw dañuy xool su fekkee dafa am ay fan te mutul fukki fan a juróom mu dagg avant fukki fan juróom deret ji ñëwaat soobaa dafay boole fan yiñ koy gis dégg nga maanaam fan yiñ koy gis lay boole bu amee ci misaal juróom ñaari fan mu dagg avant fukki fan juróom mu ñëwaat lay ñëwaat rek lay compter boole ko juróom ñaari fan yam njëkkoon a am su dagaatee mu sangu te julli rek bu ñëwaatee avant fukki fan ak juróom mu konte fekk ba mu deret ji di matee fukki fan ak bu matee fukki fan ak juróom mu sangu te xam ne loolu feebar la bu daggut wa saa yu fukki fan juróom daal moo xam dafay dagg-daggee muy konte fan yi muy ñëw ba mat fukki fan ak juróom wala dafa ñëw direct ab yoon muy konte ba mat fukki fan ak juróom saa yu matee fukki fan ak juróom daggut na sangutu julli xam ne feebar la su matee fukki fan ak ba pare. mu dagg waaye avant fukki fan juróom mu ñëwaat dafay sangu te julli xam ne feebar la ndax mbërëg bu daggee <laughs> balaa moo ñëwaat moom lu mu gàtt gàtt dana man fukki fan juróom gis ni noonu la amaa su fekkee deret ji da koo gis mu koy door a gis mu dagg te matul fukki fan juróom xaar ba mat fukki fan ak juróom mu ñëwaat dafay xam ne loolu mbërëg mu bees la def koo gisaa yoonu ñaareel rek <laughs> na bàyyi noon def yëpp naka noonu su ma fukki fan juróom ba pare mu dagg avant ba xaar ba mat fukki fan juróom mu ñëwaat dafay xam ne loolu mbërëg mu bees la moom it ndax saa yoo toogee fukki fan juróom boo gisee dara rek atteel na mbërëg la mu ne fayin tamaa daa dem mu ngi ñëw ci ki xam ni nag moom yàgg naa gis mbërëg am na fan yi mu ko doon gis maanaam am na aada fayin tamaa daa dem continué naa dem mu deret ji foo ko aadati ci kaw aadam bi tas ci sadda mi mi li darurati was ni ngi lor way maanaam maanaam andal moo taara ne ku baaxoo filaay di ci mbërëg ayil mas na mu alati ki xam ne taqarara sax na laa ñeel ko adatun aada ay fan maalumati yu ñu xamee ndaa ca koo xam ne nii daal am na ay fan yoo xam ne aadaam la mu di ko gis mbërëg kooku feeñ tamaa daa nem kon ne ne bi ak moom addamu deret ji wazaada mu yokk ala zamani si jamono al muqarrar bañ saxee ndaa fu moom binaa way xamsati ayaamin si lu toll ni juróomi fan aw si datin wala juróom benn fan masalan ci misaal wala men xatee ta daggut ita saran na muñu ko bi salaasati ayaamin si ñetti fan siyaasa na yokk alaadati yaa ci alam de koo xam ne nii deret ji dafa continuer ak moom dégg nga muy gis deret rek di gis deret rek waaw ba romb Adam maanaam ci misaal moom aadaam juróom-ñaari fan loon rek la ko doon gis jigéen ñi nag bokkuñu aada ku nekk ak aadaay boppam bu dee moom juróom-ñaari fan la ko doon gis deret ji ñëw waaw romb juróom-ñaari fan kooku dafay yokk ñetti fan de ñetti fan yooyu bu jeexee mu sanguta te julli bu je bu jeexut it bu ñetti fan yi jeexee deret ji daggut it dafay sangu te julli xam na feebar la moo tax mu ne deret ji continuer wasaare mu yokkal zamanil muqarrar si jamono jum leer indaa fa moom binaaw xamtati ayaamin si lu toll ni juróomi fan aw siratin wala juróom benn fan masalan ci misaal bu dee moom juróomi fan la ko doon gis <coughs> wala juróom benn waaw mu continuer wala min xati tadagur istasara na mu ñu ni ko maanaam naqaar bi salaasal ayaamin ñetti fan yokk ko calam ko doon gis ziyaada doon yokk ko alaadataa ci aadaam <coughs> wala istisaaru mu ñu ni ko gi nag ku sa mooy mu sax moom jigéen ji baana intihaay aadataa gannaaw jeex ak aadaam muntazira daaji xaar inqitaaw nuzuli wàcceeg mbërëg ma yow man ab bis fenn xataanem dagg na yaxtasara na sangu wasalata julli way laanem daggut intasarat waaw mu xaar asaani yoonu ñaareel ba fenn xataanem dagg na fokk saali la ko doon mu sangu te julli way laanem daggut <laughs> intasarat mu xaar asaali bi annaa ne moom te mu ñëndiku bi salaata si ñetti fan wala min xataan dira dagg naa damm daraja déedéet <laughs> yow jigéen ji gis mbërëg ba sa waxtu woon ko doon gis jeex te mbërëg ma dàggut da ngay yokk ñetti fan yokk ñetti fan mooy lan mooy na nga yokk ñetti fan yoo xam ne mbërëg lay doon deret waaye boo yokkee benn fan mbërëg ma dàgg da ngay sangutu julli bu di kaatee sa diggante yi matul fukki fan ak juróom nga kontaal beneen fan bu lagun nga sangutu julli bu di kaatee sa diggante bi fukki fan ak juróom nga kontaat mm, beneen fan muy ñetti fan ñetti fan yooyu nag bu jeexee mbërëg mi di kaat te diggante bi motul fukk fan ak juróom wala mu continuer sax direct xamal ne loolu feebar la nga sangutu julli <laughs> waaye saa yu daggee da ngay sangutu julli boo déggee ma la bu daggee te diggante bi motul fukk fan ak juróom loo ciy déggee mooy saa yu mbërëg mi daggee xaar ba mat fukk fan ak juróom mu ñëwaat loolu moom mbërëg mu bees la <laughs> bu fekkee nag mbërëg mi dafa romb sa aada nga yokk ñetti fan ñetti fan yëpp toppalante dagu benn yoon da ngay bàyyi rek bu ñetti fan yi jeexee nag bu daggee baax na bu daggul nga sangutu julli xam ne loolu feebar la waa daali maanaa xawli mooy maanaa waxam jum naan istasara na muñu niku salaatata ñetti fan moo taatata ñu baaxoo su ma laa yaxloo topp du wéet imma benn anta tafiqa mu mu wutee benn rek aada yi nekk benn wala ñu wutee fa i tafaqa nem dëppoona bi an kaana tamay mu nekk yaa ci yaa di ko dikkal fii kulli maratin si yoon wu nekk sama sama ayaamin juróom-ñetti fan masalan ci misaal itasara na mu indiku bi salaasata si ñett ala samaane si juróom-ñetti fan maanaam jigéen ñi ñaari façon jigéen lañ am na koo xam ne aadaam benn rek la maanaam moom saa su nekk juróom rek la ko doon gis wala juróom benn wala juróom ñaar mosul wutee am koo xam ne aadaam dafay wutee tey man na koo gis juróom suba mu gis ko juróom ñaar waaw su ko defee nag <laughs> day xool si misaal su fekkee bis bu nekk juróom-ñetti fan la koy dara di dikkal su juróom-ñetti fan yi jeexee daggut dafay yokk ñetti fan comme nañ ko waxoon ci gannaaw ñetti fan yi bu jeexee bu daggee baanam bu daggul mu sangatu julli xam ne feebar la phénomène xatin <laughs> ñam daggut baan saar gannaaw loolu fay moom mu saatan aji jor ngeen la de tax tasilu na sangu wata suumu tam woor wata soli tam julli watuutoo tañ laal ko boo amee ñetti fan daggut na na na xam na xam ne feebar la na sangu te julli xoor mën naa seeg borom këram de bu neex téléphone dem wutee na maanaam benn kaanat te mooy mu nekk yaati yaa di ko dikkal samaanati ayaamin juróom-ñetti fan taaratan léegi-léegi waa sata ayaamin ak fukki fan su fekkee nag moom léegi mu gis mbërëg waa juróom-ñetti fan léegi-léegi mu gis ko waa fukki fan fay naa nak moom tastasru day mu ñëndiku ala asarti ci fukki la ala samaani waaye mu ñëndiku juróom-ñett yi kooku daal bu dee léegi juróom-ñett la koy gis léeg fukk bu ko gisee juróom-ñett daggut kay na xaar ba mu am fukk rek soo amee fukk daggut nag mu door yokk ñetti fan su daggee baax na bu daggul mu sangu tujuli waaye laa la samaaniya du am juróom-ñetti fan daggut rek mu daal di ne xaar mu yokk ñetti fan di fukk ak benn déedéet dafay xaar ba mu am fukk bu daggul mu yokk waaw mu yokk yeneen waaw ñett muy fukk ak ñett ndax fukk gën a bëri ci aadam kon koo xam ne ni aadam dafa wutee léeg-léeg mu gis ko ay fan. léeg mu gis ko fan yu ko ëpp day jàpp li ëpp ci la mu koy gis rek mu jàpp ne loolu aadaam bu dara ji daggee avant lool moom day sangu te julli xam ne feebar la waaye saa yu ñëwaatee te matul fukki fan ak juróom da koy booleeg lam njëkkoon a gis ndax aadaam jeexagutoon mu dikk su demee ba aadaam jeexit mu dagg avant fukki fan ak juróom mu ñëwaat nag na yokk ñetti fan rek ndax laabloo maanaam yokk gutoon ñetti fan yooyu waaye nag fan ba pare mu am avant fukki juróom mu ñëwaat. loolu feebaral na sangutu julli xam ne loolu dara wen kaana nu nem nekk na idiyaanu asrati di ko fukki gi aqala di a minaa ci moom fi samaani des juróom-ñett waa ay suma fi misaal naa suñ misaal maanaam dire moom li ëpp juróom-ñetti fan la koy gis rarement rek la koy gis fukk su ko gisee juróom-ñetti daal daggut <coughs> naqaar ba mot fukk su daggut na mu yokkaat ñetti fan dire lam koy gis ci fukk bëriwu sax <coughs> mu ne atay sa jaawa sa ba mu jéggi ni su saarin genn wàllu weer fo mustahaadun aji jongeru la kooku mi tax toori comme atteeb laab de maanaam atta isa jaawasoon muy mu jégg ni spécial genn weer fu mustahaadun aji jongeru la kooku mi toori dafa mel ni ku laab maanaam jigéen su gisee mbërëg waaye mbërëg mi dafa romb araam te mu yokkee ñetti fan mu ëpp fukki fan ak juróom kooku lam ci mën a yokk lay yokk rek moom tolloo fukki fan ak juróom waaye mbërëg mi du ëpp niki moom bu fukki fan juróom mooy aadaam am na fukki fan juróom daggut te loolu rek la nga daan gis bu daggut rek dafay xam ne feebar la du ci yokk sax benn fan ndax mbërëg du ëpp fukki fan juróom ci ku ëmbut naka noonu bu dee aadaam waaw fukki fan ak ñeent la woon fukki fan ak ñeent daggut benn fan lay yokku su dee aadaam fukki fan ñett la woon moom fukki fan ak kooku ñaari fan lay yokku rek laa wax de wa xawloo waxam ata sa jaaw sa bu rombee nisfa shahrin genn wàllu weer al baytu maanaam maanaam ana mahral istishaari naka bara bu mu ñëndiku bi salaatul ayaami su ñetti fanaan al aadati ci aada al muqarrar buñ saxal isaalam yu addi bu joxewul ilaa mu jaawasati xamsata ansar yawman ci romb fukki fan ak juróom buñ la waxee ne bu mbër mu yokkee sa rombee sa aada yokkal ñetti fan mooy su fekkee rombul fukki fan ak juróom boo yokkee du romb fukki fan ak juróom fen addaa ne waral la ila zalika jëm ci loolu lay sa nekkul laa di ko ñaal anta sasera mu muñu ko bi salaasal ayaamis ñetti fan de bu boo yokkee ñetti fan mu romb fukki fan ak doo yokk dara nekk na aadatu aadaam salaasal ansar fan ak ñett istasara na muñu fan fen nekk na arbaat ansar fukki fan ak ñeent istasara na ko bi si benn fan dong fen nekk na xamsa ansar fukki fan ak juróom fa istihaar den muñu ko laa dara bu dee aadaam fukki fan ak ñett la moom fukki fan ak ñett daggul ñaari fan lay yokk comme niñ ko waxee woon bu dee aadaam fukki fan ak ñeent la moom fukki fan ak ñeent daggul benn fan lay yokk bu dee aadaam fukki fan ak juróom la moom fukki fan ak juróom du yokk dara mooy moom fi ayaami istisaari ci fan mu ñëndiku yi xaayit nu ajum rek la laa tasumu du xoor wala tasuy du julli wala yaatiyaa du ko dikkee zawjaa jëkkëram kooku kumb rek lañ koy jàppee du xoor du julli te du ànd ak jëkkëram mooy jamono bu mu ñu ko laa wax maanaam bu aadam da boo rombee aadam mooy fan fanem ko doon gis daggut dégg nga <laughs> bu mu ti eh, muy muy xaar yeneen ñetti fan ñetti fan yooyu ndem mbërëg maa ngi dikk rek dafay mel ni koo xam ne ni ko yor mbërëg la du julli du woor du ànd ak jëkkëram ndax ñetti fan yooyu ci biir mbërëg mi la bokk su fekkee nag dagg na moom dafay sanguta julli saa yu daggee xataa bu aadam jeexagul sax saa yu dagg rek dafay sanguta julli fen tajaawaza nam jégg na xaydu ambaragam alxamsa salaf ko juróom almaskura yuñ tudd waaw benn kaanat moo xam mu nekk muftaraatam di ko commencé gis mbërëg wa tamaada mu continué bi ak moom daraja ilaa ba ci fukki fan ak juróom wala mu xatee ta dagul aw kaana nekk sax adatu adam arbaata asra yemoon fukki fan ñeent waaw wasa sara mu muñu ne ko bi min ci benn fan muy fukk ak juróom wala min xati ta daggul ay ba tey wasa mara mu continué fi nu suuri ci wàccam borom aada daal waaw bu mbërëgam romb mu fukki fan ak juróom wala ku ku door gis ñoom ñëpp fay moom baax na rek gannaaw fukki fan ak juróom mu sanatona ci jor la borom aada kuy gis mbërëg bu mbërëgam rombee fukki fan ak juróom rek te borom aada moom balaa muy mën a romb fukki fan ak juróom mooy rek mu aadaam jege fukki fan ak juróom ni ki mu fukki fan ak ñeent wala ñett wala fukk ak juróom kooku moom su jeexee daggut dafay xam ne feebar la amma bu fekkee aadam wut fukki fan ak juróom kooku moom <laughs> su yokkee ñetti fan bu daggut sax na xam ne feebar la jëru muy xaar ba mat fukki fan ak juróom ay na dama naka deret naasira ba aji wàcc baari ni spéciari gannaaw genn wàllu weer dam muy eletin deretu feebar la wa fasaarin deretu yàqu la yokk mu dañ atte xale yaa si jigéen ñi bi ci laab ko tax tasilu na sangu wujuban ci lu war wata sumu tam woor watu soo itam julli watu taw tañ laal ko ilaan yax solol mooy maama shifaaw saafara bi tadaawin ci fajoo xëyri wala dul loolu dara jooju di wàcc waaw dara jooju dara ju yàqu borom na na julli xoor <laughs> dégg nga laablu <laughs> rek dara jooju di génn moom moom du ko compter day xam ne feebar la <laughs> dégg إن أريد الإسلام استعنت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته